ci ndimbalu Islamic Cultural Foundation of America ñuy ànd di jàppalante di nafar liñ xamoon wala jàng liñ xamagut ci diine képp koo xam ni <clears throat> mi ngi ñuy topp ci xalqa bi te bëgg a topp suñu yeneen i waxtaan mën na abone ci ICFA TV on YouTube ICFA TV wala ICFA TV pour suñu mbokk francophone yi tabarakallahu ñuy jéggalu ci question yu bari yi nga xam ne jot nañ leen te mën guñ ci tontu ngir yàlla xat-xat yi yu barkeel yi lee di bési gàmmu ñu leen ciy ndokkeelaat di ñaan suñu borom bés bi nga xam ne mooy bëccëgu fukk ak ñaar ak guddi gi weesu di guddi fukk ak ñaar di juddu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa leer yi ci yàlla boole yëpp ak barke yi ak yiw yi ñu ñaan suñu borom sotti ko ci suñu kaw sangee ñu ko ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke cheikh tidiane radiallahu anhu buñ waxtaanee lenn ci chartaay njàpp te ñu tudd ci lislaam ak la ca boroom xam-xam yi wax tudd ci taklif ak la ca borom xam-xam yi wax tudd irtifaau damil xaydi wan nifaasi ak détail ya ca borom xam-xam yi def tudd tahuriyatul maai wala tahuriyatul maai tahuriyatul ma ak la nga xam ne moom la ca borom xam-xam yi wax tudd izalatu ma yamnacu wusul almaai ila acdaai alwudui ak la ca boroom xam-xam yi wax ñu tuddoon ci suñu waxtaan wu mujj duxulu lwaqti ala man bihi xadathun daa'im juróom benn yooyu la ñu tuddoon ku ci bëgg lu gën a yaatu mën na dellu ci xalaqaat yu weesu moo xam audio yi la wala dem ca chaîne YouTube ba muy ICFA TV tey nag mbokk yi ñu i bëgg a wax ak yéen ci li ñoo tuddee ndox mu dagan ndax charte la ci njàpp wala du ca charte hal yushtaratu hal yushtaratu lmaau an yakuna mubaaxan hal yushtaratu an yakuna maau lwudui mubaaxan boroom xam-xam yi nag bu ñu ubbee qaacida ak question rek mooy dañ caa wuute am na ci boroom xam-xam yi ñu ne déedéet ndox mi dagan naam daganut su laabee rek bu ca borom jàppee njàppam wér na ndox mu dagan mooy ndox moo xam ne yaa ko moom ci jënd wala ñu may la ko wala ñu joxi ndigal ci ku bëgg a jàpp jàpp ca misaal ci ndox mu daganut mooy ndox mu këf wala ndox muñ sàcc waa ji dafa sàcc ndox ndox mi gà laab na waaye moomut ko ndoxum jàmbur la dafa ko sàcc mbaam mu fëkk ko lenn ci borom xam-xam ni <clears throat> bu ca borom jàppee dafa am dana am bàkkaar gaa ci fëkk walla sàcc gum sàcc ndox mi waaye tojam dana yëgatiku naka noonu it bu ca raxasoon laab bu ca raxasoon sobe Euh, sobe ga dana ca dañee lii mooy madhabul xanafiya waa kër abu xanifa mooy madhabul malikiya waa kër imam malik mooy demuwaayu shafiiya waa kër imam shafii ñoom nee nañ waa ji su sàccoon ndox mbaamu mu ko gannaaw ndox mi laab na bu ca jàppee jàpp la wér bu ca raxasee sobe sobe sa dëñ na sharaan donte am na bàkkaar ci jëf jim jëf am ñu ne déedéet laa tasixu tahaaratu bihi wa yartaficu bihi alxabathu loolu la lenn ci xanaabilatu wax ñu ne ndox moomu bu ca borom jàppee njàpp la wérut waaye bu ca raxasee sobe sobe sa dëñ na sharaan am ñu wax ñetteelu wax ne la yartafiu bihi xadathun wala xabathun loolu nag bokk na ci mufradaatu alxanaabila mooy toj du ca yëgatikoo sobe du ca dëñee loolu la ibnu xazm rahmatullahi wax kenn la ci ilimaanu zahiriya ana luy sababu seen wuute ci masala bi moo di ne ñaar moo ci njàppuli li war te mooy jàpp kiy julli mënta julli feek jàpput kon jàpp war na ak lu xaraam mooy ndox mi nga xam ne aji jàpp ji da ko sàcc te sàcc dafa xaraam njàpp jur julli dafa war jël alali jàmbur dafa xaraam <clears throat> te mbir nag mënta nekk di lu war nekkit di lu ci waxtu wa ci boppam gannaaw njàpp jaamu yàlla la te yàlla tabaraka wa taala duñ ko jaamoo lu xaraam te ndox mi nga xam ne moom la waa ji jàppee ndox mu xaraam la ndax daf koo këf wala mu sàcc ko ñu ne kon jàpp la baaxut ndax almuharramu laa yakunu qurbatan yuta yutaqarrabu biha aw yataqarrabu biha al abdu ila allah ñi nga xam ne dañoo wax ne njàpp la wérut loolu lañ wax mooy njàpp li lu dagan ak lu xaraam ci booloo te jàpp pour julli dafa war jël alali jàmbur kii ndox mi dafa xaraam te mbir mënta boole war ak xaraam ci waxtu wi ci même temps te njàpp jaamu yàlla la te yàlla duñ ko jaamoo lu xaraam te ndox ma waa ji jëfandikoo pour jàpp dafa xaraam kon njàpp la wérut ñi ne njàpp la wér na mooy dañoo gis ne li tax mooy dañoo gis ne xaraam nga dellu ci njàpp li dafa dellu ci jëf joo xam ne dafa génn njàpp li mooy sàcc ndox njàpp mooy lan mooy raxas cër yi nga xam ne ñoom lañ digle nga raxas ko ak masa liñ digle nga masaa ko bu ko waa ji defee tojam yëgatiku na ànd ak nag bu jëlee ndoxu jàmbur defee ko ko dana am bàkkaaru jël gim jël alalu jàmbur kon ñoom dañoo jàpp ne fa tahrimu wa sixatu gayru mutalazimain li xaraam dafa nekk fële muy këf gi li wir nekk na le muy njàpp gi am na adilla yu bëri athariya wa nadariya ñeel ku nekk ci kuréel yi téerey fiqhu yi def nañ ci tafasil yu bare bare tabaarakallahu mu ngi mel ni waxtu waa ngi jege ñu ñëw ak yéen ci chartab juróom-ñetteel bi muy alqudratu ala isticmaalil maa i mën a jëfandikoo ndox mën a jëfandikoo ndox maanaam bokk na ci liy tax njàpp war aji jàpp ji mën a jëfandikoo ndox dëgg-dëgg charte bi charte la boo xam ne jagoowut ci njàpp wala njàpp rek jagoowut ko bépp jaamu yàlla balaa moo war day fekk nga mën ko ndax yàlla moo ne toggul togguma kenn lu mënut yàlla toggut benn bakkan lu bakkan ba mënut laa yukallifu llahu nafsan illa wusaaha wax na ne fattaqullaha mastataatum ragal leen yàlla seen kemtalaayu kattan buxaari ne imran ibnu xusayn nee na dama amoon kaanat bi bawasir bawasir mooy li ngeen tuddee hémorroïde hémorroïde feebar la bu ko daloon nee na ma laaj yonentu sallallahu alayhi wasallam nu may jullee mu ko jullil taxaw soo ko mënut nga toog soo ko mënut nga tëdd salli qaiman fa in lam tastati fa qaidan fa in lam ala junub kon nag bu fekkee ne ndox maa ngi fi waaye aji war a jàpp ji mënta jëfandikoo ndox mi ngir feebar moo tax mënu ko jëfandikoo wala lu ko ko mën a teree jëfandikoo ci ngant yi lislaam nangu kooku daf fay bàyyi ndox mi def leneen muy tiim ndem mën naa tiim su mënta jàpp mënta tiim nag li wér mooy na julli te du jàpp te du tiim maanaam amut ndox mum jàppee amut borom bum tu tiimee wala mënta jàpp jëfandikoo ndox mi ndax feebar mënta tiimit ndax feebar walla amut lum tiimee wala amut fum tiimee kookee dafay julli nam mënee ndax fattaqullaha mastataatum ak laa yukallifu llahu nafsan illa wusaaha ñu taxaw fii tabarakallahu ñaan suñu borom defaral ñu suñu zahir ak suñu uh, batin niñ ko waxee ci tàmbali bi ngir ngeen mën a topp waxtaan yi yi raw yëpp ak yeneen waxtaan na ngeen abonné ci chaîne organisation bi muy ICFA TV ndax ñu bëri léeg-léeg seeni ñoom wax dafa fees ñu euh, delete ñu supprimer audio yi wala yenn vidéo yi bu ñu delloo nag ci euh, chaîne bi ICFA TV daañ mën a amaat accès ci yu weesu ak yeneen i euh, yëf lu mel ni gàmm gi weesoog xutab yeeg yenn waxtaan yi tabaarakallahu an nañu yàlla may yàlla